ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرد عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا ونصارى بعد غد وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه مسلم عباد الله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وتجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة لتخلف عنها ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقط عنه وسقطت عنه faridati zuhru ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ne mënuñu koo peeg bokk na la ca gën a màgg diine bu tedd bi nga xam ne moom la tànnoon ca jagleel ñu ko ñu ngi koy jéggulu ca di ko ñaan mu musal ñu sunu ay jëf di seede ne moom rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di seede it ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la yonent la ba mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo roy ba ba bis penc di taxaw gannaaw ba maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te lépp lu ngeen di wax ngeen seet ba xam ne wax ju jub la waxi dëgg la ca ngeen xam ne ku bëgg a texe àdduna ak alaaxira benn yoon rek la amul bu ko ñaareel te mooy topp ndigali yàlla ak ndigali yonent yàlla gannaaw loolu mbokk jullit mboolem yi boroomi xam-xam dëppoo nañ ci ne jullit ajjuma farata la bu gàllu ci bépp jullit boo xam ne yey na ci moom muy fardu aynu loolee gis nañu sunu boroom subhanahu wa taala moo ca woote ee yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm su dee noddal nañu bisu aljuma yéen ñépp jóg leen ngeen dem wuy ji loolu di fàttalikuk yàlla ga ca mooy julli ba ak xutba ba ca ngeen bàyyi lépp loo xam ne am njaay la loolu day xam leen ne mooy la gën ci yéen kon loolu sunu borom moo ko farataal ci ñun donte ne buxaari ak muslimin solo nañu ñu jële ci abi hurayra mu nettali na yonent bi alayhi salaam nee na ñun day ñooy xeet bi mujj a ñëw waaye yowmal qiyaama ñooy raw xeet yépp ñun la yàlla di jëkk a atte tabbal ñu aljanna lan moo ñu may loolu moo di ne ne bisub ajjumaa ngi nii yàlla da ko farataaloon yahud yi nañ ko màggal farataal chrétien yi nañ ko màggal yahud yi daal di koy soppee bisub samedi bi nasaraan yi soppee ko bisub dimanche looloo tax ba yowmal qiyaama bisu ajjuma moo ñuy may ngëneel ñun la yàllay jëkk recevoir te it ñun la yàllay jëkk tabbal aljanna yàlla yàlla boole ñu ca ñooñu mbokk màggaayu bis baa ngi nii di bis boo xam ne nii kii di abi hurayra nettali na abdullah ibnu omar it nettali na ñoom ñaar ñépp ñu seede ne yonent bi day taxaw na ci kaw min baram ne ay nit day duñu bàyyi di sàggane bisu aljuma lu dul yàlla dana kaste seeni xol ñu mujj bokk ci gaay yu saggan yi mbokk aljuma mooy bis bi nga xam ne ci la jurit ñi war a dem daa di yeesalaat seen ngëm chargé wu waat ci la nga xamee ni moom mooy seen xam-xam te mooy xutba aljumma dara mënu ko remplace looloo tax ba daañ ko yëg sunu ndaw ñi fi jóge dem bitim réew te demetuñu aljuma déggatuñu xutba dañuy yëg ci ñoom diine na muy wàññeekoo ci ñoom bu baax te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon gannaaw ba daana wax ne sallallahu alayhi wa sallam man day doon naa mbébét ana lu teewoon ma dem wër kër yi képp koo xam ne gis naa ne yow waroon ngaa mën a julli si ci mbooloo mi nga lànk jaaxal sa kër ma taal kër ga ci sa kaw loolu lépp mbokk dañuy wone màggaay ba nekk ci bisu ajjuma waaye màggaay ba nekk ci bañ koo wuy ji nañu xam ne bisu àjjuma boobee sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ki màggal samay màndarga day loolu day wane ragal yàlla gu nekk ci xolam wa man yuazzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub te bokk na lu yàlla màggal mooy la nga xamee ne mooy bisu aljuma amul benn bis buy am lu dul bisu àjjuma moo ko gën a màgg gëmal ne moo gën a màgg bisu tabaski bu dul aljuma moo gën a màgg bisu korite bu dul aljuma ixtilaaf am na ca boroom xam-xam ya waa bisu arafa su dee du aljuma nag moog aljuma bu gën a màgg am nañ ca juyoo mooy bis bi gën a màgg ci bis yi moom la yàlla tànnoon bind ci sunu bay aadama moom la tànnoon dugal ko ci biir aljanna ca la aadama moyoo nit yàlla génne ko aljanna muy wane ne mooy ci bis boobu yemul ak mooy ci beneen bis doonte ne na mbokk bokk na lu ñu yàlla na too tey mooy ba ñu fi tubaab yi tubaab yi bàyyi les week-end muy samedi ak dimanche tey da ngay gis ni prolongé nañ ko ba lii nga xam ne mooy bisu ajjuma ca lañ koy waajale lu bari ci ajjuma la ñuy waajal seen caaxaan yu bari yi loolee nag nañu xam ne mooy ci yàlla yëmul ak mooy yàlla ci beneen bis comme jaamu ci yàlla yëmul ak jaamu yàlla ci beneen bis ajjuma jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yaa ngi saxal waxtu julloo ju waxtu julli juróom di ko def na mu ware bakkaar yi nekk ci diggante bi dana ko far waaye ku saxal di dem aljuma bakkaar yi nekk ci diggante bi dana ko far weeru koor ba weeru koor dana far bakkaar yi nekk ci diggante bi su dee na waaju moytu na bakkaar yu màgg ya loolu it mu lay wone ne bu la seytaane nax mukk xëy na lu bari ci ñun nit ñi ñun ñi sax duñ ci duñ ko def waaye léeg-léeg mën nga dem ci dëkk arab yi gis ñoo xam ne ajjuma rek la ñuy màggal dem sol seen yu rafet dem julli ju juma su paree pare nañu ndax nee nañu ajjuma ba ajjuma day fari bàkkaar waaye ñàkk dégg wax yonent bi ba mu waxoon ne su moytoo bàkkaar yu mag yi te benn bàkkaar gunta màgg fat julli xam leen na mbokk naan sàngara li muy bon bon njaaloo li muy bon bon rey nit li muy bon bon waxtu julli jot julli woo moo ko gën a bon ñu ngi noonu waxtu julli jot julli woo moo gën a bon sàngar ak njaaloog agression loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax bisu aljuma mbokk mi ngi nii sunu borom yàlla farataal ko waaye walilahi alhamd ci kan lu ko farataal muy képp koo xam ne nii dafa nekk gor ci ñun jaamu sharia gisatuñ ko sunu sunu dëkk yi waaye koo xam ne nekk nga gor ànd nga ak sa xel koo xam ne nii majeur nga mooy dem nga ba am nga quinze ans wala dix huit ans selon ci nationalité yi nga daal di ànd ak sa xel daal di doon koo xam ne nii yaa ngi sax nekkoo ci tukki ku mel noonu xamal ne ajjuma war na ci yow bu dee ne am nga kàttanu jóg dem ca jumaa ja allahumma lu dul mu am ay ngant yoo xam ne nii léeg-léeg mu ñëw mën a tee doomu aadama bi dem ca jumaa ja ngant yooyu bokk na ca su dee yàlla dalaa nattu ngay jigéen xamal ne yow day jumaa waru la waaye itamit ne su dee ne yow da ngaa nekk xale bu ndaw majeur goo jumaa waru la yow mi feebar jumaa waru la ki nga xam ne daa nekk ci tukki ku mel noonu it da ngay gis ne jumaa waru ko waa ji nga xam ne daa am lu mu ragal ne su demee ci jumaa ja lor mën na ko faa dal am na borom xam-xam yu ci yaatal ba yegg ci ne sax da ngaa yoral nit bor boo xam ne mënoo koo fay nga ragal ne bu ma demee mu poñe ma fa kooku jumaa ji dañ ne waratu ko su dee ne ab taw mu ngi sotteeku wala ngelaw lu tar su boobaa it jumaa waru la waaye ñooñu ma wax ñëpp muy soxna sa di xale ba di aji feebar di aji tukki ñii ñëpp da ngay gis ne lan moo nekkoon seen farata mooy julli tisbaar waaye ku ci jóg dem ca jumaa ja da nga am yoolu jumaa ca tamit tisbaar ja teggeeku na ci yow ku ca jóg dem ca jumaa ja da nga am yoolu jumaa ca jumaa ja teggeeku na ci yow mbokk bisu aljuma mi ngi nii ab julit da koo war a waajal ab julit da koo war a màggal bokk na lañ koy waajale mooy guddig aljuma ñu def ko guddig zikrullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax nañ baril julli ci moom guddi aljuma ak bisu aljuma waaye mbokk def ko guddi jaamu yàlla ban koo def guddig lor sa dëkkandoo wallahi biig rek da ngay gis ne am na ñoo xam ne nii ci sunu gox bi lu jege au moins un kilomètre ou deux kilomètres à la ronde yàq nañu seeni nelaw ci dañoo jàpp dañuy jaamu yàlla mbokk guddi àjjuma mooy guddi zikrullah guddi jege sa borom waaye bàyyi ba onze heures nga daal di fëgg sa micro auzu billahi mina seytaani rajim yoo seytaani rajim kontaan na ci yow ndax yaa ngi def loo xam ne safaanoonu ak sunna yaa ngi yàqal nit ñi seeni nelaw aji feebare yaa ngi leen di sonal loolee mbokk képp ku koy def da nga xam ne jaamu woo yàlla yaa ngi ci ak réer sunu mag ñi mus ñoo gis lan mooy haut-parleur mboolem sëriñu diine ñu wax ci Sénégal kenn mus ñoo gis haut-parleur yépp mi ngi xew gannaaw ba kon yow bu dee ne da nga ne da ngay zikrullah e waaye zikrullah yemee la ko place bi nga nekk mais jël haut-parleur tekk ci kaw étage ñu ne tey la guddi àjjuma fii ak deux heures du matin jotul kenn du nelaw ñu boole ci jaxase góor ak jigéen su dee jàpp nañ ne loolu la ñuy waajale àjjuma day wallahi xamuñu lan mooy màndarga aljuma waaye bu suba jotee nañu xam ne bisu aljuma mooy bis boo xam ne léppam dañ ko war a fonk su dee yàlla wërsëgal na la nga bokk te ñu ca war a dem góorgóorlul nga daal di sangu sangu boobu nga xam ne ni ngay sangoo farata nga ko war a defee boroom xam-xam yi am nañ ci ay juyoo am na ñoo xam ne dañ ne sunna la am na même ñu yegg sax ba ne farata la doonte ne la ca gën a digg doomu mooy ñi ne déedéet nekkul lu dul sunna la waaye dana nekk farata ci koo xam ne dafa nekkoon ci liggéey ba kat toppe ko ca ku mel noonu farata la mu dem sangu ji waa ji nga xam ne ab mécanicien la wala tôlier la wala nangam nañu xam ne seen métier yooyu métier yu noble la tey jii mënoo dem fenn lu dul da ngaa dugooto waaye nag tamit nañu ragal yàlla boo nekkee ci liggéey yooyu ba yëg ne yow ñaq nga ba ànd ak xet bul dugaatil yéeg bi rek ñëw dugg ci jumaa ji na nga dem sangu ji amma bu doon yow yaa ngi càngaa yaa ngi set su boobaa it nekk na sunna nga sangu ji waaye boo sanguwul it jàpp ñëw ci jàkka ji xamal ne loolu baax na mbokku soccu lislaam da koo digle ci waxtu wu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ma bañul woon coono dal leen danaa ne balaa kenn julli na soccu yonent bi mosaan génn këram soccu lay mujj a def su mosaan ñëw këram soccu lay jëkk a def su mosaan yeewu ci lalam soccu lay jëkk a def waaye nag daana ci gën a ñaaxaate bisu aljuma balaa kenn dem jàkka ja na soccu nga sol la gën a taaru ci sa yére yàlla wërsëgal la parfum nga laal ci sa parfum loolu da ngay gis ne mandarga la bu màgg la pour lan ndax yaa ngi war a dem daje ji ak sa borom subhanahu wa taala mu doon benn mandarga bu rafet boo xam ni noonu ngay war a dajeeg moom comme bu doon tene tey jii ki nga xam ne président de la république da laa wowoon te pale ba xam nañ ne loo man ci toilette toog xeeñ lu neex da nga ko def ñu góorgóorlu it bañ a mel comme li ëpp ci ñun di def mooy jàpp ne damay julli ji juma ay damay bàyyi ba jàkk ba deux heures la ñuy julli ma bàyyi ba deux heures mais trois ma génn dem fekk julli ga mbokk julli juma ba ko sunu borom di wax ne bu ñu noddalee dem leen ila zikrillah ma ngi ci jublu ñaar mooy xutba bi ak la nga xamee ne mooy rakk yi ñu ciy julli loolee la nga xam ne loolu lépp la ñuy tudde juma képp koo xam ne nii yaa ngi saggan bébaa la nga xamee ni ni mooy xutba bi raw na la na nga xamee ne genn wàllu juma moom raw na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñaax ñu mu ne sunu borom subhanahu wa taala day ajjuma ju nekk mboolem fu ñuy jullee juma dana yebal ay malaaka ñu taxaw ci bunt yi yor ay registre di bind ñi nga xam ne ñoo ñëw ci jàkka ji kii mooy premier kii mooy deux di bind di bind di bind bu ko defee sunu borom dana xaaj waxtu woowu nekk avant imam di ñëw ci juróomi waxtu képp koo xam ne da ngaa ñëw te waxtu wa wu jëkk wa donte ne juróomu waxtu wa jubluwuñ ci soixante minutes une heure de temps bi nga xam ne tubaab bi moo ko déterminé waaye ay waxtu la yoo xam ne mën na am dix minutes la wala quinze minutes la ala kulli xaal juróomi xaaj yàlla dana ko def loolu ka nga xam ne moo ñëw te xaaj bu jëkk ba malaaka yi daañ ko bind may ko yoolu koo xam ne dem na ca daral ga dind gileem rey ko woo ay miskin sarax leen ko loolee ka ñëw ca waxtu ñaareel ba ñu bindal ko yoolu ku jënd nag sarxe ki ñëw ci ñetteel ñu bindal ko yoolu ki jënd xar sarxe ki ñëw ci ñeenteel ñu bindal ko yoolu ki jënd ganaar sarxe ña nga xam ne ñooy mujj ñëw avant imam ñu mel noonu ñu may leen yoolu ku jënd ab nen daal di koy sarxe ñu dégg ci ñaari mbir mbokk ndekati yoote bokk na ci jaamu yàlla yu yàlla bëgg nga jël lekk di ko sarxe commencé ci gileem ba ci nag xar waaye même bu doon ab nen ngay jël sarax ko te yàlla tax loolee ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk waaye yow doomu aadama yi bu doon pay googu yàlla dañu koy jox tey ci àdduna ñu dem jumaa tey ñee jiital seeni gileem ñee jiital seen nag yow nga bokk sab nen wallahi jumaa bii di ñëw kenn du la jiitu ci gileem ya kon na ngeen ragal yàlla moo di de teel a ñëw ci jumaa ji loolee da ngay gis tuyaaba mënu koo paase doomu aadama tànk yaa ngi ñëw ci néegu yàlla malaaka yi ñi ngi lay ñaanal yàlla allahuma ixfir lahu warhamhu yàlla jéggal ko yërëm ko dañ lay considéré yaa ngi julli fii ak yaa ngi toog ci jumaa ji dégg naa it benn borom xam-xam bu ci def benn njuumte mu ne bu dee jigéen ñee ñoom dañoo war a mujj ñëw teel a dem fan la teg loolu moo di ne ne jigéen la nga xamee ne mooy xutba juma na mu waree góor ñi déglu ko noonu la waree jigéen ñi déglu ko tuyaaba ji góor ñi sàkku si loolu rek la jigéen ñi di sàkku si loolu it muy wane ne jigéen loo mën a teel a dem jumaa demal te xamal ne la yonent bi alayhi salaam doon wax it suñ ñëwee place ba gën a kawe ci jigéen mooy sàpp ba féete gannaaw ba nga xam ne moo mujj mooy ba féete ak góor ñi waaye teel a dem jumaa soo demee teel sa bopp góor góorul ci say zikr loolu it ñu ñaaxati ne xutba boobu dañ koo war a considérer comme julli gi amul différence ngal la waaye yow jullit soo toogee di déglu xutba imaam melal na yaa ngi julli ndax bu doon tey da ngay julli benn waaye di wax sa wet da nga ne ko xëy noppil mboolem nit ñi xam nañu loolu doo ko def ndax boo ko defee day yàq sa julli naka noonu même bu imaam dee xutba bu keneen dee wax amoo droit na ko noppil comme nag bu keneen dee wax amoo droit na ko noppil ma ngal la ana koy wax su ko defee boo ci soolee doo wax alhamdulillah soo déggee yonent bi doo julli ci moom doo digle lu baax doo tere lu bon lañu lay sant mooy ubbil say nopp déglu li imam di wax lii rek lañu la sant ci xutba mi ngi noonu mbokk julit su dee yàlla wërsëgal na la nga ñëw ci biir jàkka ji fexeel xool place boo xam ne yaatu na nga toog fa bul nekk di jéggloo su nit ñi di leen lor bu dee yàlla dogal na nga fekke ak imam benn rakka dolli ci beneen rakka rek sa ajjuma baax na amma bu dee yàlla dogal ne fekke woo ak imam benn rakka su boobaa même bu dee am nga loo fekkee ak imaam ci ay taaya ak yu demee noonu bu imam sëlmalee da ngay jóg julli ñeenti rakka muy la nga xamee ne mooy si tisbaar nii mbokk mooy taxawaay ba ñuy war a taxaw ca la nga xamee ne ni moom mooy néegu yàlla bi subhanahu wa taala bokk na it bu dee ne góorgóorlu nga teel a ñëw fekk imam ñëwagul loo man ci rakka def ko waaye ngallabal faat ñaari rakk yu jëkk ya muy tahiyatul masjid su la neexee julli ñaari rakk toog boo ko defoon ñeent juróom benn juróom ñett ba loo mën nga def ko loolee da ngay xamee ne ci sunna yoo xam ne yu ñu sunnaan la ci juma yal na yàlla déppale sunuy juma ak juma yonent bi yal na yàlla nangul ñu ko nam ko nanguloon moom ak i sahabaam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعتاه إياه وأشار بيده يقلله يقللها متفق عليه وقال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي أيها المسلمون كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره حيث كان يقرأ في صلاة الفجر سورة ألف, ألف لام من سجد وهل أتى على الإنسان حين من الدهر إخوة الإسلام كما أن لهذا اليوم مكانته ومنزلته في الدنيا فيوم فاليوم الجمعة كذلك شأنه ومنزلته في الآخرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة فهو يوم يلتقي فيه الأولون والآخرون وأهل الأرض وأهل السماء والرب والعبد والآمل وعمله والمظلوم والظالم وهو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة ومن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي فتنة القبر أي مكو جلدي نيغي سانت سونو بروم مي واتي وون يوم الجمعة موي نغنتي بس يوني سونو يوننت موي نغنتي يوننت يوننت بوبو nga xamne mas nay wax ak sahaba yi na leen bisu aljuma de mi ngi ni yàlla def na ko mooy bis bi gën seeni bis yàlla may na leen ci benn heure boo xam ne lu ci jaam ñaan yàlla yàlla dana ko ko may donte ne heure boobu da koo gàttal loolee boo delloo ci borom xam-xam yi am na ñu ne mooy fii imaam yegsee ba baa fi julli gi di pare loolee muslim solo na ko donte ne la ëpp ci ñoom teg ca leen ca joxe mooy mi ngi nekk gannaaw bi takku sanu jotee ba baa jant bi di so ndax loolu mooy la mujj ci bis bi te sunu borom lu nekk la mujj moo ko ci gënal looloo tax mu jagleel ñu loolu gis ngeen laylatul qadr yàlla nga ko def ci mujjeelu weeru koor noonu it la ñuy wërsëgalee heure juma mu nekk gannaaw tàkkusaan ñu war a baril di zikrullah loolee nga xam ne yonent bi alei salaam nee na jaam bu mu dajal ngay julli am na borom xam-xam yu koy firee ne ki toog ci jàkka ji di xaar julli moo kuy jullee yem looloo tax ba ñu bari ci ñoom bisu ajjuma bu tàkkusaan jotee dañuy dem ca jàkka ja di jàng alquran wala di zikrullah di booleeg seeni ñaan ngir yàlla déppale leen waxtu boobu waaye ala kulli xaal mbokk julit yàlla nëbb na ko nim nëbbe leelatul qadr ci weeru koor soo bëggee jot ngëneelu leelatul qadr ñaar fanweeri guddi weeru koor yépp def ko la nga xam ne mooy leelatul qadr amma soo bëggee jotit ngëneel bi nekk ci waxtu àjjuma bi yàlla nangu ñaan bisu àjjuma bi yépp def ko bisu ñaan ñaan ba gën ci ñaan yi rabbana atina fi dunya hasana wa fi alaxirati hasana wa qina azaba annar yonent bi salallahu alayhi wa sallam it daana ñu ñaax ne bis bi gën mooy aljuma ngan la waay baril leen guddi aljuma ak bisu aljuma di julli ci man bokk na ñaan gi gën a mag mooy nga julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam heure boo jullee ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon heure boo jullee ci moom benn yoon malaaka yi jottali ko ko mu ñaan yàlla mu julli ci yow loolu it moo tax baril leen di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam fu ngeen mën a toll bokkoon na ci aadam sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma bu jotee mu màggal ko jagleel ko loo xam ne sahaaba yépp lañ koy xam depuis te fajar ga bokk na lum daan tari mooy alif lam mim sajda la daan tari ci rakk bu jëkk ba rakk ñaareel ba mu tari hal ata ala al insan xinun min ad dahr tey jii dañuy gis ne loolu sunna la boo xam ne daanaka quartier populaire yi benn imam ñi mu ko def imam bu ko def bu ëllëgee ñu bëri dañ waxtaane sa julli googu bal ñu ëpp dañ bàyyi sax sa jàkk benn yoon ala kulli xaal mbokk yonent bi loola daan def ñaari saar la yoo xam ne boo ko nemmeekoo dañuy jàngal sunu cosaan cosaanu àdduna cosaanu doomu aadama sunu taxawaay ci kaw suuf naka la ñuy faatoo naka la ñuy dekkee nu ñu yàlla di attee nu ñuy tabbee biir aljanna ñay tabbi sawara nu ñu fay tabbee yooyu yépp da ngay gis ne ñaari saar yooyu du ko ëmb moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam nam daan def suratu qaaf mu koy bari jàng ci min baram noonu la daan def suratu alif lam mim sajda wa hal ata al insan mu koy jàng ci fajar yow ma ajjuma ay yéen mbokk julit bisu ajjuma bi màggaayam nekkul ne yàlla da koo yemele ci àdduna bal bis la bu dem ba yowmal qiyaama yowmal qiyaama lañuy gis ne la jiitu bépp doomu aadama bu yàlla dogal nga dee guddi aljuma wala bisu ajjuma yàlla dana la musal ci mbëggalu bàmmeel yàlla na yàlla musal ñu ci mbëggalu bàmmeel te wala fi ñi ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ mooy koo xam ne sa bàmmeel amoo fa jafe-jafe insha allah yowmal qiyaam doo am jafe-jafe te bokk na xéewal googu yàlla di ko defal ñu dee bis aljuma wala ñu dee guddi aljuma gannaaw ba bisu aljuma lañu xam ne itamit moom mooy bisu daje bu màgg ba ca la aadama alayhi salaam di daje ak doomam di mujjoon a judd ci kaw suuf ca la nit ñi ak jinne yi di daje waaye ñu doon dund ci kaw suuf di nit ak jinne ak bàyyuma yi ca la ñuy dajeeg waa asamaan mboole mi malaaka yi nekkan kaw asamaan yàlla indi leen bal la gën a màgg loolu lépp ca la sunu borom jalla wa ala di daje ak jaamam yi keroog képp ku tooñoon nit keroog ngay daje ka nga xam ne moom nga tooñoon waaye keroog jëf yi nga mës a jëf yépp keroog ngay jàkkaarloog sa jëf yooyee mu daal di lay teete yóbbu la fa yàlla dogal ci yow mooy bis boo xam ne nii moom la sunu borom nar a jagleel yowmal qiyaama nii bis yi tëddee noonu lay tëddee te mooy biir aljanna day am guddeeg bëccëg day am altine talaata ba baa am aljuma ajjuma ni yàlla di wootee ci jumaam yi dajeeg ay jaamam noonu it bisu ajjuma la yàlla def ci aljanna benn ak benn jumaa ju mag ca la waa àjjanay daje kenn xamul ñaata milliard bu boobaa ca la yàlla subhanahu wa taala di yeesal njéggalam yeesal yërmandeem yokk seen i taar yokk seen i xéewal ñu tudde ko yowmul mazid bis boobu kii di abdullah ibnu masud radiallahu anhu benn taalibaam mi ngi nettali lii di alqama nee na dama ànd ak ibnu masud da daan teel a dem juma nee na bis mu ñëw dugg ci jumaa ji rek gis am na ñetti nit ñu ko raw mu am lu ko naqari mu ne hoo tey may quatrième waaye nag quand même ñeenteel nekkul ko sori yonent bi alayhi salaam nee ni nit ñi yowmal qiyaama buñ demee ci juma di nekk ci aljanna dañ fa tooge niñ tooge woon ci seen jumay adduna mi ngi noonu niñ daan tooge ci jumay adduna ña daan nekk premier sappe deuxième troisième ila axiri noonu la ñu fay tooge loolu muy wane ne nga la waaye góorgóorlul bu la ko yo bari ci mbiri tënk-tënk adduna di yàqal ci loolu bisu aljuma mi ngi nii mooy bis boo xam ne nii mbokk war naa doon bisu taar bis boo xam ne nii dañ cee war a wone li nga xam ne mooy mbég ci ñépp ci société bi rawatina masakine yi nañ ci bari lu ñuy sarxe aadala woon ci suñu maam yi ajjuma ñuy sarxe nañ ci bari bégal njaboot gi soo amee njaboot ngan la waay njaboot gi nañuy xàmmee bu sa ajjuma ci yow ci alal doo leen di jox wala lekk gooy changé wala lu demee noonu au moins ñu xam ne ajjuma mi ngi nii ndax ajjuma mooy la nga xam ne mooy suñu it looloo tax ba borom xam-xam yu mag ya day bari woon nañu àjjuma ñuy baril di génn ay sarax ngiree kontaan loo masaakine yi mbokk boo dellu woon ci benn téere bu ñuy wax zadul maad kii di ibnul qayim rahimahullah dala ñu fa wax fanweeri ngëneel yu àjjuma jagloo ci leneen dudul loolu bokk na ci rek lenn loo xam ne nii xam nga ko la ca gën a màgg mooy bis bi gën mooy bis suñ bisu it gaa yi àjjuma gën a màgg gàmmook màggal ak koriteeg tabaskeeg lépp loo xam ne doomu aadama yaa ngi cay daje di rey ay naga ci xare ci ganaar rek lu mën a doon di ko màggal nañ xam ne la gën a yey mooy màggal bisu aljuma mooy bis bi gën ci bis yi boo xam ne day sax àdduna ak alaxira looloo taxit mooy bisu sangu bi ba set noonu ñuy sangoo ba set it boo ko jaarale yoon yàlla sang la say bakkaar ba nga set mi ngi noonu soo defee ajjuma ni na ko yàlla bëgge na nga sangoo ba set la la yàlla subhanahu wa taala di sange ci say bakkaar ba nga set mooy bis boo xam ne nii mbokk ku ko màggal yàlla dana màggal sa desutu semaine bi yépp loolu la borom xam-xam yi di wax nee nañ ku bëgg sa semaine di baax fexeel ba sa ajjuma baax ku bëgg sam at di baax fexeel ba sa weeru koor di baax ku bëgg sa dund baax bu la yàlla wër sëgalee ak màkk fexeel ba ak ga baax képp koo xam ne baaxal nga ñetti